bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci duniyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam Mariama auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaam ala rasuulillaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ bi mi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci bis bi di leen ñaanalit ci bisu maamam bi di soxna jaaratullah di am mbégte ci taalibe yi nga xam ne nii ñoo ànd ak ñoom ak jullit yi nga xam ne itam bàyyi nañ seen yitte ñëw fii ànd ak moom ci bisub soxna jaara bi di wax ne amul lu dul lii ndax ay maamam ak i wajuram képp koo xam ne aussi itam bàyyi nga sa yitte ñëw ci moom yëg na ko bu wér boo ko gisee ak boo ko gisul su la joxee loxo ak boo ko joxul loxo soo yoroon addiye bu ko jox te gisoo ko wala mënoo àgg ci moom lépp nee na gis na ko te nee na itam mi ngi ci am mbégte te nee na mi leen ci ñaanal jëwriñam yii nag wax na loolu ay yoon ne ma na ma leen santal ndax lépp loo xam ne ni war na ma donte fukk la juróom-ñett yee ñoom ñoo ma ko defal kon maa leen di sant tàmbalee ci sëñ Mbay Sey mii sëñ Mor Gueye mii sëñ Bassirou Ndiaye mii sëñ Maguette Diol mii kii nag moom mooy lépp kii Baye Ndiéki mi mooy lépp sant na ko bu wér sant nag njaboot gépp sëñ Moustapha Diop sëñ Sarr bàyyiwuñ kenn ndax lii yëpp itam wax na ko ba ci ñii nga xamante ni nii ay sang lañ ñëw fii di ko siyaare ngir bis bi te magal gu jot ñu gis mu gis leen ñu ñëw fii reeroo ndoog moom wala añoo ndoog moom wala ñëw siyaare ko ñoom ñëpp nee nañ mi ngi leen di eh, siyaare doole leen seenu siyaare di nuyu ñëpp bàyyiwul kenn di nuyu njabootu boppam gi tàmbali ko Cheikh Mouhamadou Bachir ba ci ki nga xamante ni moo ci gën ndaw ci rakk yi di nuyu soxna yi tàmbale ko ci soxna su mag si ba ci soxna su ndaw si lépp mi ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax bàyyiwul kenn xamal ne nag moom it nee na bis bii amul lu dul moom ndax maam jaara ndax sëriñ bi ndax Cheikh Mouhamadou Bachir ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax Cheikh Mouhamadou mu Mbacké amul lu loolu ndigalit ci la tënku guddi ak bëccëg lépp luñ ko digal da koy def te mës def loo xam ne dañ naan lu tax nga def lii kon moom ndigal mooy léppam mi leen di sant nag bu baax gis na it ne mbooloo mii mépp gis ngeen ni toogee ziyaare ko amuk dal amuk cofeel mu génn fii ci baas bi ñu gis ko rek mu delluwaat lii dafay tegtal jamono yi nga xam ne sëriñ bi daa nekkoon njaareem péncu ma léeg-léeg nii la ko taalibe yi bëggee lool léeg-léeg mu yéene wax ko ku ma wax sëñ ma Lamine Diop wala bay Malick Ndiaye ne ko waxal ma fere yi ne ko dinaa ñëw teew saafonte ñoom delluwaat waaye bu ñëwee Lamine li a wax ndax nit ñi ñëw nañ bay Malick ne ko ah xam naa nit ñi ëpp Mbakke ci nit ñi ñi ñu xamoon ñi teew nañ ci jataay bi mu ne leen ba yéene ngi jaamu yàlla mu ne sëriñ bi nee na baa yii a ngi jaamu yàlla ñëpp ne waaw mu ne ah ni ngeen ko def de ndax moom la ñu digal ku ko ci de bu ëllëgee da nga dajeek moom te boo dajeek moom amoo wenn lay lu dul la ma wax ne ku jaamu mu ma ma teral la ku ma mooy ma def la noonu la safaan ba te looloo donc mu ngeen di mujjee kon nag na ngeen jaamu ci yàlla sëriñ bi moom da daan digal nit ñi jaamu yàlla nekk ci lu baax nekk ci jub mës a digal kenn lu dul loolu moom it ci la kër gu ma am tabax na fa jàkk dafa imam tabax fa euh, daara ñu fay jàng alxuraan di fa jàng xasida waxtu wu ñu sëlmalee kaamil bi des na ko jàng jël jukki xasida yi di ko jàng muy doon koo xam ne boo ko gis-gis ci moom lislaam yi kese lu mu am bokk ko jullit yi kon kii ku jiite ku ne xoolal roy ko boo ko royee daal di baax boo bëggee àgg fa yàlla boo ko royee àgg fa ndax lu lu wér ci la ne jaamu yàlla wërsëg wi ko yàlla jox mu bokk bu bokk ak ñi du leneen te ji mbooloo mii teew nii bëggu ko yitte rek la Serigne Touba nee na dee leen jël seen yitte jëmale ko ci jaamu yàlla yi ndax yàlla daa fonk jaamu yàlla mooy dafa fonk doomu aadama kon képp ku fonk doomu aadama rek yaa ngi ci àtteb yàlla bu mag ba te moom ku fonk doomu aadama la bis bi nag mooy bisub soxna jaara soxna si bi mu fiy ñëw ci ndigalul ay kilifaam la fi ñëwee jóge woon Mbàkke Bawol ñëw fi am fi lu am fi daanaka lu mat ñaari at yàlla def fi mu des fi bi mu fi desee itam ci ndigalul ki nga xam ne mooy kilifaam la fi desee mu toppoon ko guddi ak bëccëg mu doonoon koo xamante ne nii maanaam euh, fanweeri at yi ak ñett yi nga xam ne ni dund na ko euh, maanaam euh, ci la jàng alxuraan jàng ci fiq ba xam léppam muy koo xamante ne foo ko fekk muy soxna jaara da daan woor kooru ngàtt ga waxuma la farate kooru ngàtt ga muy sunna yi julli sunna yi da ko daan def ba doom yi nga xam ne amoon na ko wax nañ ne bi ñuy toll ci tout tànk ci zahir nga xam ne kenn ku kenn ku ci am fukki at amul ci ñoom daanañ ko roy di julli di julli ba moom bu demee bu julee ba bàyyi dem ci yeneen Euh, waajibaatam da ngay gis euh, doom yi kenn ku nekk nekk foofu di julli julli yooyu nga xam ne da ko daan julli wax nañ ne euh, soxna Fatim Mbakke doomam la woon demoon na ba mokkal daanaka maanaam sootu yaasin ba ci suuf ngir di déglu buy jàng alxuraan saa su ci déglu rek ci jamono yooyu Mamor Jaara mi nga xam ne moo doonoon mag sëriñ bi nga xam ne mooy sunu yaakaar topp ci ak ku ñuy wax maam Abibilaay ñett ñooñu la amoon ci doom yu góor ak kenn ku jigéen ñooñu daan nañ ko roy di ko roy di ko roy ba bu fi nekkul sax ñoom loolu muy def ci waajibaat yooyu diggante moom suñu boobu ñoom dañ koy def ñu teel a woor teel a mën a euh, topp yàlla kooku mooy soxna jaara da ngay xam ne ku dund at yu néew yooyu tey ji suñu borom may la lii pas-pas la ak ngor ak sutura ak suturaal say wajur ak déggal say waajur kon képp koo xamante ni yaa ngi ñëw fii muy góor muy jigéen ci ay jikkoom war nga ci roy ba saa su ne rek ngay mën a defar nit ndax loolu mooy ak defaru soxna jaara boo ko royee rek defaru te boo xasee defaru mën ngaa war a defar doomu aadama kon loolu mooy li nga xam ne war na góor war na jigéen war na ñëpp soxna jaara nag mooy ki nga xam ne amul morom ndax kii di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul képp ku yàlla jaarale ci moom ngay waajuram kooku amoo morom. te firnde firnde firnde yaa ngi nii firnde yaa ngi nii jigéen ju mel nii ci alam bi laa wax de waxuma la Sénégal kenn ku am bis bu mel nii man ba ma dalee dox fu ne dem naa fa ci juróomi continent yi mais musuma gis benn jigéen boo xam ne wooteel nañ ko mu am mbooloo mu mel nii bis bu mel nii Soxna jaar rek laa ko mës a gis ci alam bi laa wax de waxuma la Sénégal waaw kon kooka am na ngërëmal yàlla waaye jëg biir ngërëmal yàlla li nag dafa am ngërëmal juróom waaye nag dafa am ngërëmal borom këram jigéen nag li ëpp doole mooy ngërëmal ki nga xam ne moom dañ ko dénk ngir yàlla mu di ko denc kooku Sëriñ Tuubaa wax ne nee na bis bu ko kooku gërëmee rek yàlla gërëm na ko waaye nee na kooku bis bu ko xarabee rek xamal yàlla xarab na kooka kon jigéen li mu war a xinc woo rek mooy na am ngërëmal ki koy denc bu ko amee rek yàlla dina ko gërëm loolu la sëñ Tuubaa mu am ay bëri yoo xam ne wax na ko ci ci wasiya boo xam ne ni soxna Pend bu yoo jóg ko doon wax ngir comportement jigéen ñu am rek ay luñ ci jukki waaye duñ mën a wax lépp ngir gàttal da dafa wax ne wala tarumu taatillahi bila taati zawjati taqi zil ula wal taalami ann jihaada niswati fi taati al wa xaysuma zawjun radi an zawjatihi rida anha rabbaha bi nicma ama iza lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada wal taalami bi anna kulla ma sadara li xayri wajhi laahi zil li xayri wajhi zil jalaali fahdar fa alam laa yanju ahadun min azabi laahi xata yatruka arbaa ashyaa alkaziba walkibra walbuxla wa suu a zanni Sëriñ Tuubaa dafa wax ne képp koo xamante ne nii jigéen nga yàlla dénk la borom kër borom kër bi ñu wax nag mooy ki xam ne nii day jaamu yàlla xam yàlla di topp yàlla seet yàlla nekk ku ragal yàlla kooku mooy ki xam ne nii waxtu ko borom ñu euh, ko xati soxnaam toppee aj aljana rek la jëm ndax dafa teg tànkam ci siraatul mustaqim waaye nag am na borom kër yoo xamante ne nii seeni soxna ñoo leen gën a nekk ci jub gën leen a nekk ci yoon loola waxuñ ko ki ñu wax mooy ki xam ne nii da doon borom këru soxna si ba pare di ko tane ko ci suñ borom di ko ca wan te jiitu ko ca moo tax góor saa su ne su amee soxna na ko gën a jub gën koo dëggu te yàlla tax mooy waral lépp lum mu sàkku ci moom ci àjjana suñu borom defal ko ko mu daal di wax ne nanga xam ne lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy toppee sa jëkkër ji muy sa borom kër na la leer ne yaa ngi mel ne yaa ngi topp yàlla lenn loo xamante aussi itam yaa ngi koy sàkku ci yàlla nanga ko sàkku ci sa sa borom kër gi bu boobaa yàlla daf la koy daal jox mu ne nanga xam ne aussi itam maanaam jihaadu sooti maanaam liggéeyal yàlla ci jigéen bokk na ci topp borom këram ci lu dul ay caaxaan dégg nga mu daal di wax ne waxtu woo xamante ni topp nga sa borom kër. ba sa borom kër boobu gërëm la na la leen ne sunu borom dana la gërëm waaw wax wa xisma zawjun radi an zawjatihi rada anha rabbaha bi niama te bu la yàlla gërëmee bu la si jëgal gërëmee yàlla gërëm la dalay lay boole ay xéwal yow jigéen ji mu daal di wax nag waaye bu fekkee ne da ngaa sagan ba nga xamante ni sa sa borom kër gi gërëmu la na la leen bu liggéey yàlla du la gërëm waaw ama isa lam yarda anha abad fa laysa yarda mu ne na nga wax ne nag na nga xam ne nag lépp loo mën a def te yàlla taxul mi borom màgg gi nee na boo léegee loolu ak neen la du doon dara lépp looy def na yàlla tax booy topp su jëkkër na yàlla tax bu loo koy jëfal na yàlla tax bu ëllëgee nga fekk fu muy ay xiwal ci yow waaye nee na boo ngistalee te yàlla taxul nee na bu ëllëgee boo demee fa ak neen la du dara mu daal di wax nag ne ñeent yëf yi na ko jigéen di moytu góor na ko moytu naa nee na képp koo xamante ni yaa ngi jax ba xëy faatoon loola nee na la la leen la mucc ci safara ñu ne ko lan la mu ne alkaziba koo xam ne lu mu wax boole ci ay fen ñu ne akbar mu ne wal kibra ku rëy ñu ne ko akbar mu ne wal booxu la koo xam ne daa nay du defal kenn dara ñu ne ko akkar mu ne suu ni koo xam ne nii ñoo ñaaw njot lu baax sax bu ñëw ne ah ba de foog naa nangam daal di wax loo xam ne nii dana tax xeli nit ñi yàqu wala xoli nit ñi yàqu ñaaw ko te njortu boobu nee na bu ko bàyyil ba xëy faatu nee na du mën a mucc ci mbugalam safara bu ëllëgee loolu Serigne tuubaab moo ko wax. kon Soxna Jaara ci yii la nekkoon doon ko moytu di topp yàlla topp borom këram gi muy Mamoor Anta Sali mi nga xamante ni mooy mooy lépp tey ji yàlla may ko lii fayee ko lii. kon soxna jaara moomu bi mu feeñee 1833 1866 donc la fi jógee muy muy muy muy 33 ans yooyu mu jax takk ci la def liggéeyam bu rëy bii kon nag jaaraama maam jaara ku am ay xar baax muy maam jaara yaa ko waral sa doom feeñal ay baax maam jaara moo fi am ay xar baax moo ko waral itam ay baram doomam ji moo fi feeñal ak baax du keneen jaaraama maam jaara kuy faj ay aajo yaa ko waral sa faj suni aajo suñ tubaa faj suni aajo ñun jaaraama maam jaara ku am idaaya yaa waral sa dooma am wilaaya wilaaya suñ tubaa kenn du ko mën a table jaaraama maam jaara ku am tey junni yaa ko waral sa dooma jomal kon képp ko am ay junni tey da nga xam ne Serigne Touba moom jombal na junne waxuma la jinne ab junni tey jii murid yi kenn ëpp leen ab junni te lu ñu am jox ko euh, Serigne kon yàlla nu yàlla atte ci yërmandeem ak i xéewalam yàlla itam yàlla nañu dimbale ba addiyee yomb ñu yàlla nañu yàlla def julli akkan def ñu murit sadiq def ñu xol yu dëppaloo ñaanal Cheikh Mouhamadou Abdoulaye yàlla yàlla na fi yàgg sëñ Modou Abdoulaye yàlla na fi yàgg sëñ Modou Abdoulaye yàlla fi yàgg te wér barke sëñ Bamba ku ko wax yàlla nga fi yàgg ne moom barke Bob Touba yàlla na fi yàgg te wér Mbakke sant nañ la sant nañ la bu wér sant nañ la bu wér sant nañ la bu wér yàlla nga fi yàgg yàlla nga am ngërëmal yàlla ak sa ngërëmal maam sopp nañ la jërëjëf Mbacke jërëjëf jazakumullah xayr ñëpp siyaare si sun maam jaaratullahi Tambacounda Bamako xaay ak Ségou ga bi jaab ñëpp siyaare si sun maam jaaratullahi waa Banjul ak Casamance Joola yi ngi ñëw Firdooki soosee ngi ñëw Tuuba maam jaara yaara yi may sa bis bi ne naaj réew yëpp wàbb di ñu ngir jaaratullahi guddi gi rañaan nga rasulullahi dem baras mooy màggalu ku poroxaan ngir jaaratullahi guddi gi rañaan nga rasul